barhaamu baun waraun alifun thumma haa mi mun mujjël faydu tiijaan jox ñu ñuy ngi sant yàlla julli si yonent gërëm Cheikhu Tidiane waaye gërëm ñoom ñaar ñëpp seen xalifa di Cheikh Ibrahim al Kawlaxi ñu ngi nuyu xalifatul am de la fayda Tidianiya Mawlaay Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass di nuyu imaamul akbar imaam Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé di nuyu ki nga xamante ni moo yore kàddu pays bi di Cheikh Mouhamadul Mahi Alioune Cissé waaye ñu ngi nuyu ki représenté xalif bi fii si Dakar. di cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass di leen ndokkeel ñoom ñëpp ci weer bii nga xamante ni waxoon nañ ne haaja fii qalbi kullu sajwin defini mawlidi cheikh yi inde Tayba Ñaseeni ñu fa yéene waxtaanee góor gi juddoo woon Tayba Ñaseen moom mi nga xamante ni boo demee ci góor yàlla yu jiitu wax nañ laata juddoom digle nañ ko ba sa dooratul xariira na ko wax ni saaxibul fayda dina judd waaye dina juddoo ca dëkk bu ñaan Taïba ñi ngi dalal suñu sëriñ suñu soppe suñu xarit Cheikh Abdou Ndaw nga xamante ni kenn la si pays bi di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ko nuyu di ko ziyaara di ko dalal si seen émission waajal gàmmu Taïba sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la dalal si seen émission waajal gàmmu Taïba ñu wax alhamdulilah rabbil alamina ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. di la nuyu Cheikh Ibrahima. à travers yow di nuyu waa Fayda Tidiane yëpp. di nuyu ñi nga nuyu ñep muy khalif beeg imam Cheikh sama serigne ak Cheikh Mahi Cissé suñ porte parole. di di ndokel mbollem talib bay ñess euh bay ñess su wéru soppeem bi teerowaan mom da lan wax ani andi ibrahim allah hilaluhu hilaaluhu. xilaalul badaali naazina bu weeru yonent bi saa daan teeru bàyyi danaa wax naan moom bàyyi mu ngi ndokkeel boppam ndax weeru soppeem bi feeñ na mm-hmm. mooy weeru juddu Sayyidinaa Muhammad saa salaam muy rabiul awal mm-hmm. su fekkee bàyyi soppeem bi moom dina ko jaral bu weeram teroo mu bàyyi itteem yëpp topp ci di ko màggal di ko dundal di ci dundale mm-hmm. mu ñuy jàngal ne ñun ñi nga xam ne ñoo askanoo sopp ko moom bàyyi su wéram jotté ñun tam war nañ buuxante ci wane suñ bëggeel ci bañus mm-hmm. ñu ngi contane bu baax ci liñ nekk talibañus di kontan liñ bokkalo mbëggeel bu ak mboolem talibañus mm-hmm. di leen dalal bu baax ma sha allah sëriñ bi bay ñu tay fikki fan ak juroom si rajab bi si ci si Taïba Niassène tey soo ñu bëggoon a wax gor gogu juddo won si Taïba Niassène mooy kan nga xamante ni ooteem daj na alam diine gi àggale na ko fum mu àggul woon tarixa tijaan gi àggale na ko fu agguloon àggul woon waaye faydoom gi fu mu diine gi àggale fa tarixa tijaan faydoom bi àgg na fa kan moo doonoon Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu moom mi nga xamante ni ñi ngi waaj waaw alhamdulilah rabbil alamina xam nga alquran li mu wax dañu ko daan wax des fois ci xaq si naa muhammad sallallahu wa sallam muy mooy qul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu alxuraan mu ne ngeen di nettali ngeen ne li yoon la ak may yërmande yàlla gi mu ne di yàlla gi ak bëggee yërmande yàlla gi yàlla mu ne ci alxuraan loolu moo gën bépp dajee bu ngeen dajee du ko bëggee xayru mimmaa na dajee bu ngeen mën a dajee bëggee yónent ci yàlla Muhammad mi yërmande yàlla muy may yàlla dajee yëpp moo ci gën mm-hmm. bàyyi sam boy xol mom mi nga xamne tay bu ko na ci khulafa wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke sañ nañ wax ne sax mom moy khalifa sayyidina Muhammad parce que mo wax mo ne ahbabtu ghata arani kuntu man bëgg naa yonent ba dem sax ba mujj nekk nekk ko moom ba nga xam law sawaruni fil xaqiqatin lan yaraa si waa chargé mahbuubi bii na tamattaw bëgg ci yàlla Muhammad sallallahu ba wasallam ñu demé bu ko foto won bu carte bi gene man bàyyi la sama carte mo ci doon te bay may yàlla la wanal faddu bi yadillaay yu timan yasha ñu bëri bëggoon nañ nekk ci place bii Baay Ñas nekk muy ki nga xam ne moo yaatal diina gi ki nga xam ne moo yaatal tarixa bi indi fi li nga xam ne moo waral existence de l'homme li waral yàlla bind doomu aadama ñu ngi koy amee ci buntu Baay Ñas bu gën a gaaw du ma ne duñ ko amee feneen de parce que may yàlla yaatu na mais xamal nit ñi yàlla xamal leen seen morom ñu ngi ko amee ci buntu baay te booy bàyyi wax na ne ana rahmaniyatullahi li man li man yuhib man maa yërmande yàlla ci képp ki nga xam ne bëgg na mm-hmm. wax lu zamaani kulluhum faasa raqiyan si waa man xalaat nax di asira xawaay mm-hmm. sama ñooñ jamono ñëpp texe nañ man bàyyi mm-hmm. képp ku jaar ci sama yoon rek man bàyyi texe nga su la yàlla mayee chance ñëwoo avant kooku nga ñëw après kooku te bàyyi wax la wax ju rëy ca jamono mu ne xattama fatxi inde mahdi وغرقنت جميع bi قيب تحت قداي man baay yàlla may na ma farxu boobu maa ngi ci sama laytaayu berbe ba ma nekkee ci sama laytaanu bebe ci la mboolem góor yàlla ñëw siñanteeg man ne man baay man maay seen sëriñ te bu fekkee nag ba mu nekkee ci mbaxat ci ci maxat ci ci bersoom mm-hmm. la ko yàlla may loolu xam nga mën nga ne waxu nit la rek mm-hmm. waaye ba bàyyi ñëwee ba oote àdduna bi yëpp nga xool ulama yu ko topp muy Niger muy Nigeria muy Burkina Faso mm-hmm. muy Gambie muy fii ba Afrique du Sud fii ba États-Unis mm-hmm. bàyyi sama classe yi ñoo ci amul xam-xam mais bàyyi ñu ko topp ñëpp ay borom xam-xam lañ mm-hmm. tey ñi ko topp tey ñoom Ibrahima Salih ak ay Cheikh Mouhamed Tahir Bouchi ay ñoom Imam Ousmane Cissé ay ñoom Cheikh Ibra Fall ñoom sëñ Aliou Cissé ñi nga xam fii ñoom moom maalam Sani moom maalam Tidiane ñoom mm-hmm. Sani Kafanka ñi nga xam yëpp ñoom Cheikh Cheikh Cheikh Mouhamed Cheikh Mouhamed El Michri ñoom Cheikh Uldu Naxwi ñi nga xam yëpp ponk looyu topp bàyyi nga xam ne bu deen téere rek la mhm. toppee wuñ bàyyi téere am na leneen lu bàyyi indi lu leen jomma lu ñu doon ut wallaahi su la bàyyi ñes bu wañee na la tey bàyyi weer bii la juddu mhm. ci fukki fan ak juróom mhm. te mu waxoo la ne buñ photo yonent bi bu gàtt bi génne photo moom bàyyi mooy génn yàlla may ko lu yonent bi am mbaay yàlla may ko mooy yonent bi altine la juddu altine la génn àdduna Baye Niass fukki fan ak juróom la judd fukki fan ak fukki fan ak ñaar la la yonent bi judd fukki fan ak ñaar ci ci rabil awal ci la gaañ mhm. bàyyi fukki fan juróom ci rajab la judd mhm. fukki fan ak juróom itam ci rajab la génn àdduna mhm. kon boo xoolee may yi ko yàlla may te taali bi Baye bu gën a taw Baye boole na ko ci góor yàlla yi mag ñi te du ñun noo ko ute bàyyi moo ko bind pour ñun taali Baye Niass mu ne wasuulu jameel maasi kii na bi xabli yaay képp ku jàpp sama sama buum man Baye di nga àgg ci yàlla yamu fa de mu ne wa ashkuru rabbi laysa sirriya aqiran fa baay atbaayi unii la fanaay fanaay bi fa ashkuru fa askaru atbaayi bari un min a shirk li gën a tëj jaam góor yàlla yëpp li na gën a të mooy ñoom nu ñu def ba am fanaa ñoom góor yàlla yi mm-hmm. parce que bàyyi mu ne sama taalib bu gën a ndaw sama taalib muy Abdou Ndaw am na li gën a ndaw ci ma ci may yàlla yi mooy am na fana mm. moo ñu ko garanti ku ko mun a xeeb nag yaa xam koo mun a doon nga xeeb li bàyyi ñax ne am na ku gën a tuddi sama taalibe bi ku ko am mm. te loolu góor daan ko am te Cheikh Tidiane na mu ne sama taalibe yi dina ñëw jamono yi nga xam ne mm. seen dëgg gu njëkk fa góor yàlla yëpp yem fa la góor yàlla yëpp yem nga dem ba am nag fan naa ba bàyyi di la garanti wan la ne man maa ngi sant yàlla man bàyyi ñas ki gën a tuuri sama taalibe yi génn na ci bokkaale te nga xam ne bakkaar yu gën a mag yi nga xam ne yàlla du ko baale mooy ishraaku billaah mooy bokkaale moo ci jiitu dëgg ngay ñaari waa ji topp ceeg ay góor jigéen ak yooyu topp ceeg nangam nangam ku fekkee ne am nga sëñ bu la garanti ne yow génn nga ci bokkaale wax dëgg yàlla war nga sant yàlla parce que yàlla wax ci alxuraan mu ne inna allaha laa yaxfiru an yushraka bii wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha mm-hmm. man yàlla dagal na farak yi ne def naa ne dina baale bakar bam dess bakar bokar bàkkaar inna shirka la zulmun azim muné ne si bokkaale ba togn gu maga magla bakar bu magla yo xana xam ne sax yoon ci àlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nga xamne tay motax ñu bindu ñu motax yàlla bind lépp lu bind mu ne ko la in ashrakta la yahbatana amaluka wala takuna min al khasirin yow yon ci àlla Muhammad boo ma bokkaale woon man yàlla li nga defo ñu pertna kon bu yàggee am nga sëñ bu nga xamne ne na la garantie ne la ki gën a tuuti sama taalibe yi ku jàpp ci man am nga fanaa mm. génn nga ci bokkaal wax dëgg yàlla sant yàlla la sant yàlla mënut a wéy loolu te li ci gën a neex nag mu ne bi zahiri shar'i mm-hmm. wa nuurin mubiini wa mm-hmm. rabbi saalikiina laa kaddin wala rayabin mm-hmm. ci charia bu leer bi ak sunna sayyidina Muhammad ci laa yaree sama taalibe ci lu amul benn sikki saak benn dénga de ba ma jëm ak ñoom fi nga xam ne foofu laa bëgg a yeggal loolu tey képp ku askanoo taaliba baay rek mandarga bu jiitu bu nga xam ne bu ma ne la taaliba baay la rek mooy xam nga ne am naa fana la topp yëpp na ay may la war mhm. nga am fanaa bi zaat fanaa bi nangam nangam nangam yi ci des yëpp mhm. mais la ci jiitu mooy am nga wusul mhm. parce que bàyyi moo ko garan wusul lu na bi xam laa képp ku jàpp ci baay rek àgg nga ci yàlla kon bu fekkee ne am nga sëriñ bu nga xam ne yàlla da ko indi la tuwoon góoru yàlla yu bëri bu ñu xamal ko seen taaliba yi mooy ñoom dinañ dugg ay xelwa ay ati at xam yàlla mais duñu am droit xamle ko seen taalibe bàyyi ñës nag ñëw am ko moom te mu ngi ko amee ci buntu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax la wa man yuhibbu ni wa man yaraani fi jannatil xuldi bila buxtaani is anna nii xalifatu tijaani mawxibatan min ahmadu adnaani képp ku ma gis bëgg ma topp ma man garanti naa di nga dugg na bu dul jeex ndax maa xale ba sewtiyaan te yoon ci yàlla Muhammad salaam moom moo ko fal bu fekkee mooy xale ba sewtiyaan mooy yoon di moo ko fal te ku nekk xale ba sewtiyaan rek yaay xale ba yoon ci yàlla Muhammad salaam uhuh. te terewul may yim am yëpp bàyyi boo doxee séeróom uhuh. ba gis bàyyi séeróom ci yonente bi séeróom sewtiyaan uhuh. ba séeróom ci yàlla ba ci boppam bu la garanti la xam nga ne am nga lu mag kooku nag bu ñu ne tey waaju indi may gu mand ngand gi ba ñu naan tey bàyyi nga am ay trois cent millions taalibe mhm. ay quatre cent millions taalibe mhm. lu teen yi wutee wutee lu làkk yi wutee wutee mhm. dëgg googu ñoo ko bokkandoo sa boo wax nag taale baay la xam ne lu mu teg nigérien boo ko xam ne lu teg naar boo ko xam ne lu mu teg li tax Medina Baye nekk benn cité comme Nations Unies mu mel ne Makka parce que ñoo bokkandoo ni njaay bokk ak ñun laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah en tant que musulman ñun mbóotu laa ilaaha illallaah bali lubb lubb boo bàyyi waxoon max du max du ataaya mm-hmm. may gu gën a mag mm-hmm. boobu ñu bàyyi may ci lañ amee lii tey mm-hmm. kon boobu fekkee rek reconnaissance am na yàlla ne man laa yashkuri naas yonent bi sa moom ko ne man laa yashkuri naas laa yashkuri laa ko dul sant dañu doo sant yàlla kon tey dem tey ba lu war la ci bépp taalibe Baay Ñas man de imaam mooy sama sëriñ waaye mus sa nangu weeru tey ba ñëw te du ko fekk dak Sénégal mus sa fe fe tey ba mus jot juddu Baay Ñas imaam nekk bitim réew te bu ngeen xoolee kilifa dina yëpp nag doomu Baay Ñas yeeg ñëpp danañ fexe bésu tay ba fekk leen de fekk leen Medina Baay mm. pour ñu dem ca bala barab bi Baay Ñas juddoo imaam ñu daan wax mu ne wàllu yàlla fi mu juddoo mm. ak fi mu barab ba mu génnee àdduna mm. ak barab buñ ko rob mu ne ñett barab yooyu barabu nangukaay ñaan la kon bu du woon dara ne Baay mu ngi juddoo tay ba rek war nañ fa dem pour ñaan yàlla ci barab bu barab bu tedd la booy romb tay ba di dem di nga romb ay village yoo xam ne ba tey amaguñ courant nga xool tay ba mu développé ndax lan parce que juddu xutba bu fi xam ne moo fa juddu kon boog bàyyi may yàlla la nday mm-hmm. yërmande yàlla la mm-hmm. toog di bégee di waxtaanee bàyyi lu war la naan bàyyi bàyyi bàyyi sax mm-hmm. li Michri waxoon mu ne tey li gën li war ñu def ñun mooy fexe bëggaloo nit ñi bàyyi parce que ku bëgg bàyyi rek yàlla nga bëgg li Cheikh Maïssé di wax radiyallahu taala yàlla yàlla gudda fana moom Cheikh Cheikh Maïssé mu ne ko bëgg bàyyi rek yàlla nga bëgg wallaahi macha allahu taala ki ñu àndal si émission waajal gàmmu Taïba di Mawlaaya Cheikh Abdou Ndaw di borom xam ñëpp dégg nañ nim ñu waxtaanile si ki nga xamante ni mooy Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu sëriñ bi ñu ngi waajal dem Taïba ak jàngal nañu ki nga xamante ni mooy borom Taïba ak lim lu warlul taalibe mi bàyyi wax na ni taalibe mi fi góor yàlla yëpp yam fala taalibe mi yam comme ni ko fala taalibe yi tàmbalee ni ko Cheikh Abdou waxee وحتى دبت كلام الأرباب المعارف جميعا فما رأت في كلامهم سوى القلم الأولى التي عند المراتب نعم. الفتق من عندنا نعم. نعم. لي موي بنتك أبيكو تنين وحقيقة الثاني نك بي يونت وصالس بي سيخ تيجاني فما لها رائقة فكيف بسواهما كي عمان moy sen feñu way nak di chef Ibrahim seeruñu sax pu seram waye amul kenn kuy ag ci wala wasla lil xadrati illa min baadi iznihi amul kenn kuy dugg si xadara yàlla bi lu dul si sama bunt sëriñ bi ñu war a dem dëkku waajooju noonu di waaju yéeme ki nga xamante ni da nga koy xool rek bugg ko si taaram ak léppam tey ban dénkaane ngay dénk taalibe yi war a dem am bési juddoom ñu xam la ci laaye biir taalibe yi tey boo doon dénk taalibe yi ne yéen a ngi dem bési juddu baay ñi ngi war a dem dëkku bi baay ganee àdduna tey yan laay biir ngay laay biir taalibe yi naka lañ war a demee tay ba waaw alhamdulilah lu ñuy dolliwaat foofu rek Cheikh Ibrahima moom mooy mm-hmm. eh, bu fekkee bàyyi ni mu ponk yonent bi wane na ko sallallahu alayhi wa sallam ñun war nañ wane suñ bëggeel ci bàyyi bàyyi da daan wax mu ne ñuy wax naan yonent bi gàmm bi daa la mm-hmm. mu ne parce que nit ku mët nit ku nit ku civilisé mm-hmm. du ne kaay leen màggal ma yow yaay xam ne waaye dañ ko war a màggal ñu màggal ko bàyyi itam mos sa wooteeg gàmmu Taïba Cheikh Alaay Abdoulaye al xalifa deuxième xalifa Baye moo woote gàmmu Taïba mm-hmm. ñu ngi ko ci gërëm baax di ko ñaanal yàlla yiw bu mu ci am rek yàlla na ko yàlla rosaat ci moom rosaat ko ci mboolem njabootam moom xaaji Abdoulaye parce que moo ñëmee sunna gu rafet googu mm-hmm. te ba mu koy def itam naar gànnaar yeeg aw si mag yëpp d'accord nañ ci parce que xam ne dara gënta rey màggal Baye Niass mm-hmm. màggal juddu Baye Niass ba sax naar yi ñoom dañu def sax ñoom buñ payee dañu def ismu bi say ay Mauritanie ay Ghana wane ne Baye bés bi la juddu waaye bésu ngénte bi lii la liñ ci bëgg a wax rek mooy tey dem tey ba dafa mel ne dem ziyaara ji Baay mm-hmm. fexe ba saan bi nga xam ne Baay Ñas fa la judd fa boobu mm-hmm. taalibe bi war nañ góorgóorlu ba fekkee ko mm-hmm. taalibe yëpp war nañ góorgóorlu ba fekkee ko am na taalibe yi nga xam ne nag maa leen laaya biir buñ topp seen muqaddam yi am na yenn muqaddam yoo xam ne seen anniversaire seen taale buñ koy fekkee duñ wax dara am na fi yenn muqaddam yoo xam duñ dem tey ba duñ wax seen taale bi ñuy dem tey ba dañuy bloqué seen taale bi muy Dakar muy Kaolack muy fu mën a doon am na yenn dam yi ñooy freiné seen taalibe yi pour ñu dem gàmmu Taïba dafa mel ne sax dañ ko ngeen baal ma ci kàddu ga dañ ko ñàkkal fayda te tey loolu seen muqaddam yi am maqaam muñu am lu mu foor foor foor bàyyi leen gën mm-hmm. te duñ mos a am nag li bàyyi ñees am mm-hmm. bàyyi mbiram day dem ba faw ki nga xam nag mbiram muy dem moo lay yóbbaale war ngaa góorgóorlu def présentation kooku présentation bu rafet mm-hmm. ba bëggaloo ko nit ñi ba nit ñi xam ne kii dañ ko war a bëgg ñi xam ne xàmme nañ ba di dem Tayba ñu ngi leen ciy ndokkeel alhamdulilah nañ ko jàpp ne yoonu ziar la di nga am ziar ñaar ku yàlla may chance nga jaar Medina bàyyi ziar bàyyi dem Tayba am nga ñaari ziar mm-hmm. ku yàlla may chance am nga dem Tayba rek yem fa jaar noonu ñibbi itam ba tey am nga beneen chance mm-hmm. comme ziar la nag li ñu bàyyi waxoon rek waxoon naa ko ci émission ba la mm-hmm. képp kuy dem di ziar ji bàyyi nga jàng ci suuf noddu ci sa buntu néeg doo dem ba tey ba di ko fa ñaane mm. ci sa buntu néeg ngay fas yéene ne maa ngi fas yéene dem ziyaara ji baay mm. nga noddu ci ndànk ci suuf bu ko kenn yëg mm. nga jàng faatixa benn yoon jàng sa gan la yàlla sa gan la jàngaat faati di saatu faati ne ne yaa rasulallah ana dayfakum yaa rasulallah ana dayfakum dix fois jàngaat salaatu faati faatixa benn yoon salaatu faati dix fois yaa xutbul maktumanaa day fakum yaa xutbul maktumanaa day fakum dix fois mm. trois fois du moins soo paree nga jàngaat faatixa benn yoon nag di salaatul faatix mm. ne yaa saahibu faydi tijaan ana day fakum mm. wala nga ne yaa jàng ko ñett yoon léegi nga jàng ayaatu kursi benn yoon waaye boo gisee ba ci baatu wala yaxudu hifzuhuma nga répété wala yaxudu hifzuhuma dix fois doog woowu huwa aliyul azim après nga jàng nag yàlla yàlla nga may bépp yiw bépp yiw bu nekk ci waa ba ak bépp yiw bu nekk ci bërëbu ba yàlla nga ma ko may yàlla yàlla nga musal ci bépp musiba bu nekk ba bépp luy loola waa waa Tayba ak lépp lu loola ca barab allahumma waxti ne xayra haazal makaan wa xayru ahli haazal makaan xayru ahlu maa bi haazal makaan mm. wak fii naa chara haazal makaan wa chara ahli haazal chara maa bi ko ñetti yoon mm. léegi doo ko jàng faate salaatu faate dix fois jox ko yow sa seexal mu rabbi addiye allahu akbar boo paree fekk yaa ngi soloon sa tànk ndeyjoor bi nga soloon dàll rek pied gauche bi solo won ko hmm. ci ngay dogo sol nak sa pied gauche bi nak tagu ci won bi ma ngi dem suba bo yegge tay ba ko ñu tabal teggal rabal ibadi mom hmm. ci hmm. bi bi jir bi tay ba jiirtu ka ilahi taiba taliban kon comme ngay tay tey ba lay ñane comme tay ba lay ñane taaliban foofu lay sakko bo fa deme ñu ne kep ko fa jang quarante rabbal rabal ibadi, yoon bu ne bo jàngee rek nga tek ci sa soxla parce que mu ne rabal ibadi boko jangé aajo boo ji teg mu faju du jàng rabal ibaad rabal ibaad da nga koy jàng ba mu jeex nga teg ci sa aajo aajo boo ci teg rek bàyyi mu ne garanti na allahu akbar te moom la waxoon waa tey ba dinañ ko jàng rek bu ngeen ko jàng tey ba dina màgg hmm. comme la waxoon waa Nigéria bañ koy ñaan xaalis bu jox leen duwaa ba bismi ila ashkuri mirada ashkuri murida saatdjo faddi masida hmm. saatoa ñu def xool murida minal ulumi boo mu jàngoon basmala moom la joxoon waa Nizam ne fekk yéen koy jàng du nga ñàkk mu ko xaalis. allahu bàyyi ci mbóotam yi bàyyee nañu fii nga xam ne mun mën ci jàpp. Mm-hmm. ku yàlla may ba nga mën a dem ci taati guy ga bien que dindi nañ ko fa. Mm-hmm. nga jàng ko bu la mun tam na la fekk suuf tey ba mm-hmm. suuf suuf barke la. jamono maa laa bi laa ñu da ko tëggoon te da ko limité woon ne su timis jotee ko yëpp a ko génn rëdd tey ba bii lu la dal sa affaire la. bàyyi ba mu ñëwee dafa ngi ne booyal naa ko fu mu neex waay jaar. dara du fi te loolu nag bu la yàlla may chance am sëñ bu mel noonu ba muy judd ba ñu bëri xamuñu woon Taïba waaye tey àddina bi ñëpp xam nañ Taïba ba ndoxu Taïba sax dafa neex ndoxu Taïba dara dàqul ndoxu Taïba jar naa dem rek naan ci ndoxu Taïba sangu ci dellu si waat ndox gënu koo neex ndox ëpp ko barke ndox muy tukki fii bu nekk la day dem ba Nigéria day dem fu nekk ci àddina bi mm-hmm. kon dem fa rek ziyaara ji baay mm-hmm. ñaan loolu la te ind zikri saalihiina tatanazalu rahmat ñu fàttalikoo nit ñi baax ñi yërmande yàlla dafay baj mm. bu ñu toogoo rek naan baay baay baay baay rek li imam Assane daan wax ñëw tey ba naan baay baay baay rek jar na ñëw fekkee ko mm. ñu foto la woon ne nag bokk nga ci ñu bëgg baay mm. bokk nga ci ñu bëgg yonent bi bokk nga ci bëgg sewtiyaan te bok nga ci bëgg yalla parce que baye buñ ko topé yalla rek tax wallahi suñ ko topé yonent bi tax buñ ko topé sewtaan tax hmm. te ñett yoy nak bo amé baye am nga ñett yëpp wallaahi kon bok buñu dem tay ba yalla ñu yalla may ñu dem ci jamm ak salam yalla may ñu lepp lu mën ci salatul fatiha nañ ko bëri hmm. suru tukki yag nañ ko joxé waye ko mën bala nga dem nga jang fatiha ben yoon li ila bi quraish 155 limu adadu dafi'u soo paree nga wirdu yaa daafi wu ci boppam 155. Hmm. incha allah di nga dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm ci barke alxuraan barke Baay Ñas ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla fayal Baay Ñas amiin yaa rabbi yàlla ñu yàlla yóbbu ñu dem ci Tayba ci jàmm dellusiwaat ci jàmm yàlla ubbal ñu suñ bundu xéewal yëpp yokk suñ mbëdët ci bàyyi yàlla suñ mbëdët ci bàyyi bu mu dog ba mukk yàlla suñ mbëdët ci bàyyi yàlla bu mu dog ba faw sëñ Aliou dafa xam ne bàyyi danaan ko bul mukk mukk di bàyyi di wér de yaa jaamiwu 114. ak yaa muhidu 124. mu ne képp kuy wér de yaa jaamiwu 114 ak yaa muhidu 124 mu ne sa tëbb du dog te jamono ji ni tarixa bi demee ni am na ñu bëri dog nañ ci tarixa bi te yëguñ ko waxuma la sax ay taalibe am na sax ay muqaddam yu dog te xamuñ ne dog nañ mm-hmm. te nag ku jokk ci ku jokk rek jokk nga waaye boo dogee te jokk woo képp ku jokk ci yow a jokk wut yàlla buñ ci yàlla nattoo yal na yàlla yokk suñ bëggal ci bàyyi daa iman yàlla yokk suñ ngëm-ngëm ci bàyyi ñes daa iman yàlla yokk suñ suñ ci suñ suñ suñ suñ cofeel ci bàyyi daa iman parce que moom moo ko wax inna lazina xaddamoo ni naaloo muraadum saadatan maalun képp ku ma liggéeyal mbaay di nga am seen def ci àdduna di nga am alal te di nga am texe yàlla ñu ko yàlla may yàlla na ko yàlla may pay di tijaan yàlla yàlla yokk leen daay man yokk seen yëngatu yokkatu seen dal may leen mooy yi ngeen liggéey pay bi ci barke bàññi si arab bi ñu ngi xalifa yal na yàlla guddal fanam ñaanal imam suñu sëriñ yal na yàlla guddal fanam moom tam ak mboolem xulafaay Medina yi cheikh Mouhamadul Amin cheikh mun amina ñoom ñoo yore kii kaddu kaddu xadara bi ak ponk yi nekk ci xadara bi yal na yàlla bàyyi leen may leen gudd fan ak wér bañ teewee ko ci jàmm ak salaam salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu macha allahu taala cheikh eh, abdou ndaw mi ngi amee contentement bu mag gi la dalal si fayda tijaaniya nga xamante ni say soppe lañ soppey fayda tijaaniya nga ndax lu ne wax nañ la ko nee ndax sax ba yaa ko moom ndax <laughs> bëgg lu baax rek bëgg lu baax rek tax yaa ngi dimbalanteeg mbokki taalibe yi ci lépp ñu lay ñaanal yàlla bu baax